bokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen bala àq di leen ziyaara ci weeru tedd bi xanaa nag di naqarlu rek li noonu yàlla yi def ca masjidul aqsa fekk leen ñuy julli ñii di dog seen koor ñii di naafila ci biir jàkka ji ñu roosi ci seen kaw ay bal ba ñu bari gaañu ci am ci ñu faatu ma dib jullit nag ñu def ko sama bokkum jullit ma war koo naqarlu ci sama xol donte uma kàttanu faj ko ndax yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne ab jullit dafa war a mel ne ay jullit dañoo war a mel ne jenn jëmm lu metti loxo bi metti tànk bi di ko yëg lu metti ci bopp ba xol bi di ko yëg noonu la jullit ñëpp war a dundee sunub sëriñ di sunu wasila di sunu yaakaar seexul xadim ne wa ahbibil mu'mina lil imaani wal tubqidil kaafira lil kufraani soppal jullit bi ngir lim gëm yàlla bu leneen tax yéefar bi it bu ko bañ xeet wu mbokk wala lenn wala lenn lu tax lu dul bañ gim bañ yonent bi ak weddi gim weddi yàlla na ko bañ ngir loolu waxtu bu ko noppee def dugg ci diine rek na ko daal sopp foofu nag lañ kon fo ab jullit ne rek dañ laa bokkoo loola naqari noonu war na noo naqari sëriñ bi dane wala tuaadoo man raaytum faahu yaxruju laa ilaha illa allah kon nag noo ngi naqarlu fu naqar di yem di metti lu fu mettit di yem di ñaawlu fu ñaawlu di yem jëf ji ñaaw jiinu def suñ bokk jullit ya nekk foofu waaye nag di ne mboolem ñi nga xam ne boroomi alal lañ boroomi kàttan réew yu mag yëpp ne ay jullit lañ di seetaan ñuy def li seen bokk jullit ñu ne cell ne yàcc di seetaan loolu ku leen ko wax ku leen ko waxul tiital na ñëpp jaaxal na ñëpp naqari na ñëpp waaye nag ñi nga xam ne gëmuñ sax diine lislaam waaye ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi bàyyi xel boog droit de l'enfant wala droit de l'homme aqi nit ci boppam rek wala aqi gone yéen ca rey gone yu ndaw ndaw ñu leen ci ñooñu lu tax ñu ne yàcc di seetaan kon léegi ñuy nuru réewi jullit yi koy seetaan seen i moo leen gënal défendre seen i jullit ak jàppale seen moroom jullit seen bokki jullit kon fu yëf yi jëm ab laaj la de war naa jaaxal ku ne war naa tiital ku ne. wa atiu llaha wa rasulahu wala tanaasahu fa tafshalu wa tasabari hukum xëccoo xëccoo bu demee ba tax ñu néew doole ba mënatuñ dara te ñoo waroon ëpp doole ñëpp xam naa la yonent bi saa sallam waxoon ne diine dem ba tumuranke ci mujj gi nam meloon ci njëlbeen ga waaye ñu ngi fay ba àgg waaye yal na yàlla na sa xal pexe yi yàlla yi yal na yàlla néewal doole noonu yàlla yi na yàlla toroxal noonu yàlla yi te dimbali jullit ñi te yërëm leen te ñeewanti leen ci darajey weeru koor gi darajey sallallahu alayhi wa sallam